ay prix prix prix. Mhm. Euh, vues yi dañoo war a exposé explosé nit ñi explosé nii fu mu toll nii. Mhm. Mhm. ñu demaat ci beneen cas doomi gaynde jur sa jur problème sa diggante ak Canal Plus. waaw ñu dem nga ne fan ngeen ci mujjee rek. en résumé quoi parce que waaw doomu gaynde en fait en fait wax nga ci. en fait dama gis ne série bu sénégalais. di produire ñu dem ma chaîne bu toll nii wala groupe de presse xaw ma nu ma koy tuddee. bu toll nii canal. di ñëw di sàcc sa contenue loolu c'est loolu c'est à sax fu moom donc c'est pas à applaudir. Canal mhm. euh, Plus en fait division X la jël. division X benn série moo defoon en 2011 moo nekkoon sama première série. mooy boobu gis nañ ci ñoom bi série enquête policière la. Mhm. mais li amoon euh, lu si ndaw loo xam ne musul am mooy dafa am koo xam ne day gisaane si biir série bi. Mhm. dafa am xam-xam bu ñuy wax science endogène mooy ñun suñu xam-xam bu ñu mënul natt. mën nañ ko wax sax ésotérisme mais loolu moo jaaxal tubaab yi donc loolu moo tax loolu lañu bëggoon ñoom. ñu échangé ay kii pendant des années. Mm. ñoom ñu récupéré ko. dem liggéey ak benn boîte bu nekk fii. bu tudd euh, Kéw. Mm. Lagardère moom ko donc mm. canal Bolloré la. Mm-hmm. ñoom tubaab yi ñu lëkkaloo jël idée bi ñëw liggéey ki def ci ay milliards xam nga. bu ma génnee nag affaire bi jaaxal na parce que jaaxoon nañu peut-être que bu ndaw. Mm-hmm. xam nga du du ñeme ne ñoom dañ ko sàcc. Mm-hmm. mais li day wane ne tubaab bi joxuñu cër. dañu jàpp ba léegi ay. ay jaam film boobu ban année nga tu boobu kii rek moo amoon nu mu tuddati euh, un café avec moi moom. mais tax ba tey dawoon. waaw parce que mooy loolu. saa à man lu en fait njëkkantewu ma. Mhm. ci ay série doomu gerte mi koy tourné dañu lépp mu jeex monté lépp ba mu jeex doo ko xam nga parce que aussi boo bëggee def cinéma am am na boo bëggee boo boo bëggee def munoo munoo di njëkkante ak nit ñi di def comme tourné au jour le jour bëgg monté donc euh, peut-être li may wax nii peut-être fii exclusivité la mhm. mooy. Euh, délibéré bi mi ngi génn bërki démb mooy jeudi. mais dañ def lu ñuy wax dañ ma débouté débouté mooy dañ ne yow man awma ma dëgg. Hmm. juge bi tu vois. te loolu ñi nga wax ne dafa am ay nullité exception mooy ñaar ma mën a am mooy mën na ne ñu ne man dama woon topp canal international parce que ñooñu laa doon waxal. Hmm. que canal Sénégal. Hmm. mën na nekk loolu mais. loolu bala moo bala moo leer mhm. ñoom ñu génne jugement mooy kayit bi nga xam ne day wane ñoom fan lañ teg li ñu wax beneen mhm. mooy bu nekkee nag ci fond bi mooy man li ma indi comme preuve ak ñoom li ñu indi comme preuve mënuma gis fenn fu juge mën a jaar ba ne man li ma am li ma wax du dëgg mhm. parce que non seulement wane nañ ne ñoom amuñu këyit bu ñu protéger te élément bu bees mooy Euh, semaine lundi boobu avant jeudi bi dama bindoon fi nga xam ne ki ñu wax ne ñoom moo ko créé. Mm-hmm. foofu la foofu foofu la affilié sa à dire bu nekkoon Sodav ñoom seen dëkk mu ngi tudd SACD. Mm-hmm. dama leen bind laaj leen ndax Sakho et Mangane enregistré nañ ko foofu ndax kii tudd Filimia enregistré na ko ñu tontu ma ne ma. ñoom ñu ngi nekk en cours d' enregistrement c'est-à-dire mm. ñoom. 2021 bi ci problème bi bu ko defee waaw ñu ngi koy enregistré alors que ñoom nee nañ 2014 lañ xam nga loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. ça que ñoom ils ont menti. Mm-hmm. nag man je ne suis pas euh, surpris mais je suis juste déçu parce que mm. naa ne juge Sénégal wala juge Sénégal dañ am taxawaay mais loolu nag xam naa ne fii dafa am doole. maintenant dañuy def appel. ba pare aussi bu ko laajee bu nekkee minorité yooyu xam ne ni à l'international la ñu fa nañ fa dem te ñu fa demee mhm. ñoom mënuñu am fu ñu jaar mhm. ba rëcc doole jël ba pare la jaay doole loolu la Sénégal nag mën na am mais dafay dafay rek quoi mhm. waaw waaw Mass yaa ngi TFM ba TFM je suis directeur artistique et de production. waaw depuis 2011 laa fa nekk. Mhm. waaw waaw léegi <laughs> yaa ngi foofu ba tey. Mhm. lu tax euh, ñu bëri doon xaar à ce que doomu gaynde daw foofu te dawu fa parce que tamit bay ci tànk. waaw euh, doomu bi bi mu paree. Mhm. laa ko njëkk a que Youssou Ndour gis na ko boobu Ndour gis na ko ak ñu bëri foofu gis nañ ko bi mu paree aussi te loolu avant sax may pare montage bi mais ma pare montage nag pare euh, premier épisode bi jël naa ko. ak bananas ma jox ko Bobo xam nga donc après ñoom ils n'ont pas donné suite. Hmm. ma yóbbu ko ma commencé YouTube après ma yóbbu ko 2S. Hmm. fii fii la ñuy daanale hmm. muy coow lu bees li am ci diggante. ax lu birit moo moo mawti xamal ñi ngay yóbbu rifu rifu génnane ñii rabatuñu dañuy caaxaan tiktok bi la ñuy rabal ak yooyu noonu yow seen génération Black ngeen jël waa ñoom Black Diamond moom ak ñoom Gaynde ma mm-hmm. jël hip hop yóbbu ko fu sori ba ñu toogaat beneen génération ñëwaat ginnaaw boobu euh, mm-hmm. ñoom Kaana Baas ñoom Nit Dof jékki-jékki ñoom Dip yi ñoom Ngaaka Blindé ñëw mm-hmm. ñu ñëw ba si ñoom ñu ne instant yi rab bi ba Pape di faal sax génn def ci benn coup de cœur la je sais pas bi mu defoon 2STV yi ne nag rappeurs yi delluwaat à la raison jëlaat mbir yi parce que dëkk bi cher na suukar yokku na diwlin yokk na lépp mhm. yokk na inondation bi au lieu ñoom ñu nekk di wax ci loolu ñu nekk fii naan mawti xamal ñi ngay yóbbu ak mawti bul yóbbu ñi mhm. yow sa gis-gis ndax xale yi dañoo nekk di yàq rab wala wala ndax seen texte yi rab bi kenn mënu ko yàq mais texte xam nga xam nga artiste bu ne am liberté mm. mu bind non est-ce que jamono ji waaw non est-ce jamono ji c'est waaw gis nga man génn naa album mi ngi si YouTube mi ngi tudd GMS album bi titre yëpp titre yu engagé la mhm. wax naa ci waxi policier wax naa ci wax inondation bi man ak man index ñuul ko ñoo ñoo ko def mhm. xam nga si wax waaw index ñuul ko mhm. tu vois euh, wax naa ci waxi mooy couleur parti politique engagement franc CFA yëpp wax naa ko si comprendre nga mais loolu noonu c'est une option am nag album may def boo xam ne su ma neexee ma ma wax si lu ma neex muy sama yi muy ak le bruit muy dip ñoom ñëpp am nañ ñoom liberté de s'exprimer parce que kenn du wax ne ñëw par force yow il faut que nga wax ci engagement non mm. engagement dafa war a nekk loo xam ne c'est libre man nag chaque jour mm. non après naa ñëw si mm-hmm. euh, jour te yàgg na dama yàgg a ñaax artistes yi boo demee sama page Facebook mm. muy ay muy ay euh, du rappeur rek sax mm-hmm. mais muy ay ñoom waale xam nga muy mm-hmm. ay góor gi jaay ak ñëpp pour bu askan bi amee jafe-jafe mooy surtout marché bi. Mhm. ak yeneen ñoom ñoom nañu gën di wax. des fois nga dégg benn xale bu ñu policier rey. Mhm. mais ñoo ñiy porte combat bi balaa boo xoolee seen dëkk yi Nigéria. Mhm. ay ñoom Wizkid ay ñoom kii dañuy ñëw ci manifestation yi loolu da leen da may doole. tu vois maintenant. bu bu nekkee ne mooti moom. Euh, xaw ma lu ñuy wax rek yàlla ci yàlla musal. Hmm. <laughs> pour le moment quoi tu vois. mais ñoom loolu la ñuy wax moytu na xool ñu muy yóbbu. mais nag ñenn après xam nga xam nga xam ah, nga interprétation artiste am na ñoo ko interprété de deux hmm. Hmm. façons xam nga. gis naa benn benn benn benn oustaz bu nekk Sen TV je pense. mu wax si. Mouhamed Mbaye waaw Mouhamed Mbaye mu wax Mowti. par exemple Jibril moom buñ koy wàccee di ko yónni si yonent bi benn seconde la asamaan fii mais. boo bëggoon gis mooti fii ak fii rek def na si vingt quatre mille ans xam nga loolu ci dégg-dégg ak xalaatu nit day jafee comprendre mais man astronomie daf may intéresse dama dama si gëstu bu baax astronomie koo xam mooy affaire weer week affaire jaww ji da gis ne ngandi distance yooyu dafa am gis nga ñun jant bi biddéew la mais biddéew bi ñu gën a jege ñu koy woowee euh, proximement de Samtoor am bu ñu bëggoon dem. Mhm. ah nii nii xam ñaata la ñuy def. quatre vingt mille ans. Mass ñu ngi wax ci ah, non non non non non damay wax sëriñ. non non damay wax sëriñ bi. en fait sëriñ bi c'est-à-dire mooti nu mu nu mu ngandee noonu nu mu ragalee. nu mu nu mu ragaloo. nu ah. yow tamit jàppal na distance yooyu nu ñu nu ñu ngandee cest à koo kooku kooku noonu. Mhm. ah euh, dafa am loo xam ne comme man. Mhm. kenn mësuma dégg. affaire sëriñ affaire kii ma koy woy ak yooyu parce que pour man dafa am divertissement mais am aussi religion ah, mm-hmm, mm-hmm. waxee mm-hmm. mais pour man yoo xam ne peut-être soo ko waxee mën na abba c'est libre à toi parce que loolu noonu bu nekkee ne sanction am na si wala bàkkaar am na si bon c'est individuel quoi ah, man je ne suis personne pour leur dire que bu leen wax mooti wala bu leen wax mooti xam nga mais man je serai pas le qui va dire des choses yoo ne peut si loolu Black Diamonds bon Black Diamonds euh, Cheikh ah. moom mi ngi Jurbel mu mm. ngi way toujours mi ngi def guitare waaw tas nañ bon depuis man ma génne sama album mm. moom génne na album moom mm. ko kooku kooku euh, ñoo bokk dëkk Diourbel avant sax Black Diamonds ñoo xamante woon production euh, a mën a xaar après Wodul ak yeneen bon man daanaka musique bi je fais peut très rarement quoi. gaynde farma moom mën nga ko jël produire ko mais dañ ci war a bi nga xamee nag ginnaaw yàlla yonent bi euh, ma. Mm. sama liggéey sama liggéey dëgg dëgg dëgg mooy du musique bi audiovisuel la. mais ñëpp ci musique bi lañ gën a fëkk ci yow. mais ma ni muy créer tic ci bopp sénégalais. day bàyyi ba benn moment rek. Uh-huh. mu génnee benn million de vues am deux de vues droit bi. waaw waaw fayeeku dem boo boo xoolee boo xoolee par exemple comme comme waddu waddu bi. am na lu bëri lu mu changé. depuis mm. te boo xoolee booy léegi yu bëri. bu ñuy woy mhm. dañuy sol seen ay yére mhm. xam nga yére sénégalais ay ay ay ay kii euh, Lagos xam nga ah, musique bi boole ko ci musique kii bi xam nga waaw mais mais mais mais léegi nag loolu léegi ñi ñoo ko moom ay ñoom Samba Peuzzi ay ñoom Dip ñoom kii ay gab kon daal da ngaa jàpp da ngaa ko dese waaw man am na yoo xam ne tey mënutuma ko way xam nga parce que egg naa peut-être mën naa wax ay way jabar xam nga sëy xam nga ay tegg na ay sikkim xam nga ay yooyu noonu laa doon quoi mais. bu nekk ay bay xale yi moom nga bàyyil quoi. ay suba saa yi bi may bi may waaw bi may pare. Mhm. booy boobu sikkim la. Mhm. sikkim laay sikkim laa. kon daal léegi musique xale mais daal ko génne. waaw waaye de teewul nag nga yedd xale yi ñuy wax tamit vraiment. Mm. kon ma ñu ngi lay. non dañ cee wax incha allah. ñu ngi ñu ngi lay gërëm. comme de au lieu nga wax xale yi def ku cri de cœur da nga leen raay noonu rek. waaw nee na xale yi daal dañuy divertir mm-hmm. nii la ko ku nekk am nga liberté d'expression. Mm-hmm. vraiment naa après bon ku si nekk aussi ni ngi interprété xam nga. Mm-hmm. Euh, donc maa ngi nuyu ñëpp xam nga kontaan ñëw si émission bi. sa featuring ak booy tamit ñu ngi koy xaar. waa man def naa featuring ak Sam Peuzzi sama album bi xam boobu lu mu tudd policier baal ma. mais pour déglu lu sàmm posé nga xam ne booy bu mën rap te te li muy war na niveau donc maa ngi nuyu ñëpp ma waxoon rek mhm. boo leen gisee ñu indi bataille euh, électorale nii seen dëkk mhm. ci mairie bi demee ngeen jaxase mairie bi mhm. waaw parce que yéen am ngeen droit ñëw jël si yaa dem appel à l'insurrection <laughs> ma ne bu leen bàyyi ñu jël ay nit ñoo xam ne dëkkuñu foofu yéen mënu leen am mënu leen am certificat xam nga ñu koy jox ñeneen bu leen bàyyi loolu. dëgg bi kenn moom xam nga c'est toujours un plaisir. Mm-hmm. donc euh, ñu dem euh, ñu partagé plateau bi tey ak MASS Mass ñu koy remercier également ci disponibilité am kontaan nañu vraiment partagé ak moom di leen jox nag euh, dig daje ci kanam tuuti incha allah ci VSD Sénégal. Mm-hmm. ngeen ci ànd ak man mi toog. Mm-hmm. gay xam naa du yàgg dara di nga di nga ñëw de temps en temps di doxantu VSD ñuy relax rek ci kanam nag di ngeen am. la ñu invité nag ki nga xamante ni moo di Euh, gay xanaa rek di la bàyyi nga doxal yow moom doo def neex na di remercier nag équipe technique bi nga xamante ñoo ñu accompagner ci blabla ba allez kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm surtout Mass Black Diamond gis nañu ni ngeen euh, rafetloo sax toogaayam gis nañu seen i réaction depuis lors mais ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm euh, Abdou maa ngi lay maa ngi fii lay taxaw boobu di ñu di ñu teg bi bijou aussi pareil ñu ngi leen di gërëm Sénégal 7 on pour vous ñu ngi fii lépp lu nga xamante ne intrigue na wala lépp li nga xamante ne soxal na leen suñu yitte loolu la ñu fexe lépp lu nga xamante ne mën nañu ko ba bégal leen ba o ba euh, offrir leen li nga xamante ne magie lay doon par rapport avec la par rapport à la télévision incha allah ci loolu la ñuy dox c'était Vito Gueye pour vous servir Penda Badji ah ba bye ba samedi incha allah ciao. Facebook,